Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 22 août 2024 suñ fa jógee dañuy dem fële ci wàllu fiscalité aide à la presse précarité des médias ñii di patron de presse yi daal ñu ngi contredire bu baax baax kii nga xamante ni le ministre de la communication di Aliou Sall ginnaaw bu mu defee sortie mu doon benn tontu boo xamante ni ci sortie bi nga xamante ministre de la communication Aliou Sall def na ko ginnaaw loolu nag ajjuma bi ñu génn jëmale ko daal ci lancement officiel benn plateforme déclaration des médias du Sénégal jëmale ko daal ci benn rencontre boo xamante ni Aliou Sall defoon na ko ginnaaw bu mu defee état des lieux jëmale ko ci dette fiscale subvention des médias des ko daal ci yi ainsi que li nga xamante ne mooy cotisation sociale yi ginnaaw loolu jeudi bii di ñaar fukki fan ak benn ci weeru août atum deux mille vingt quatre àllarba ñaar fukki fan ak ci août 2024 lii du conseil des éditeurs et diffuseurs de presse des CEDEPS nous ñoo décidé de tenir ben point de presse pour indi li nga xamante version des faits ginnaaw CEDEPS mi ngi enregistré ben Infarma jëmele ko ci déclaration yi nga ministre chargé de la communication Aliou Sall yëkkat na ko muy ay propos yoo situation fiscale entreprise de presse gestion de fonds d'appui développement de la presse du tout ko la presse ñu dénoncé lépp loo xamante ni ay fausse la daal di annoncé li nga xamante def nañ occasion bi nga xamante ni ay intervention publique mu doon loo opération de manipulation la diabolisation jëmale ko ci ay fin politique pour saper li nga xamante ni crédibilité presse bi jëmale ko daal ci organiser disparition une entreprise de presse pour créer yeneen entreprise yo xamanteni ñom ñoom accueillir jëmale ko dal ci ay causes partisanes lool nak dañ ci sore jëmale ko ci ay déclaration liminaire jëmale ko ci ay patron de presse lu doon ay argument défense bi nak dañ ko fournir jëmale ko ci Mamadou Ibra ginnaw mom moom ñu mu àndal muy situation bi nga xamanteni social des entreprises de presse la muy fonds d'appui de développement un néna fiscalité des entreprises de presse li di CREF dafa noté notam ay montants ak ay dettes yo xamanteni fiscal dañ ko joxé ci ay entreprises de presse yo xamanteni dañ ko annoncer par le ministre mu doon ay ay chiffre yo xamanteni c'est faux suñu constaté que lepp luñu décliné jëmele ko dal ci 40 milliards dafa agrégé ou en droit jëmele ko dal ci simple taxation d'office de pénalité méthode yo xamanteni yu infinante la jëmele ko ci CEDEPS trouvé scandaleux lepp lu jëm ci secteur économique bu réew mi ay entreprises yo xamanteni seulement ay autorités ont publié illégalement et donné une violation de secret de leur situation fiscale L'éditeur di CREPS l'utilisation dénoncer dénoncé de la méthode de visée pour braquer opinion publique contre les entrepreneurs de précis. Ce suñu nous ci présenté en dehors de la loi ainsi que CDEPS mi mingi annoncé dal ci lenn communiqué bo xamante le 16 août 2024 ay entreprises de presse yoo xamante dañuy continuer comme li nga xamante non lañ doon liggéey jëmale ko ci ay services fiscaux à chaque fois mu doon nécessaire ay entreprises de presse yo xamante dañu bañ acquitté wu jëmale ci ay obligation fiscale bi nga xamante ni mënuñu accepter benn autorité dal di privé lépp loo xamante ay droit la ñu aménager ay versement yo xamante tay ay dû la deuxième question bi mooy association sociale des entreprises sociales euh, des entreprises de presse CDEPS dal mi ngi resté conscient jëmale ko ci effort yi nga xamante dal

manipulation ministre bi ba qui ki di communication dans di créer ay tension jëmale ko dal ci ay employeur ak ay employé fonds d'appui bi muy aide à la presse ay montant la yu annoncé par ministre de la télécommunication numérique donne na six mois lu incomplet la fournir fournirul liste totale des bénéficiaires amna ay entreprise de presse yo xamante tay di ñi ngi revendiquer publication bi alors que CEDEPS dafa am njàqare ak tiitaange ci clarification bi nga xamante ne bu sélective la ñen rek lañ tan génné len alors que kii nga xamante moy ministre de la communication di Aliou Sall ñu ngi koy demander ci service inspection d' mu def lumière jëmele ko ci montant bi nga xamante dañ ko alloué à ay euh, ci walu aide à la presse ñu détourné ko parce que huit millions la ay entreprise yoo xamanteni demul ci ay entreprise de presse donc loolu lañ koy laaj mu leeral ko muy ay tontu yo xamanteni ni sa jagleel nako ki nga xamanteni moy le ministre de la communication ginnaw Moussa Bokar Thiam tontu nako na arrêté dal di stigmatiser li di la presse sénégalaise